combat bi du yomb de si diggante ñaari mbër yi kii Pouye de bu écurie ressortissant de Fatick ànd ceeg ki nga xam ni mooy étudiant di écurie Bawol mbooloo ñoom ñaar ñu koy dóor étudiant koy dóor waaye ki nga xam ni mooy Pouye de mayu ko dara da ko ndengeñ da ko ndengeñ mu bëgg ci génn moo tax mu koy dóor ay coup si diggante ñaari mbër yoo xamante ni attention bañ na buddi na ko mu bañ arbitre baa ngi leen suivre di leen bàyyi xel ndax ki nga xam ni mooy Pouye 2 dina ci génn du yomb de waaye Pouye 2 jël na ko étudiant bañ na étudiant bañ na dafa rasu commissaire Dioune kaay nga nga nga ñu tuuti si combat bi ni muy dawee nii. déggoo man la du ma commentaire ci yii dama bokk ci commission bari nga histoire trop. <laughs> voilà attention daan na ko daan na ko Gouye 2 daan na ko Gouye 2 daan na suñu borom sànq wax naa leen ko ne woon naa leen dama soxla. te ku soxla bu jëfee ku ko xool day xam ne kii dafa soxla te dama soxla dama bëre ñaari combat daanu ñuy gor a ba tey a topp su may génn mu mel ni Siteu mooy génn loolu jom ak fulla ak fayda dama doon deemee tey du ma daanu dama jël làmb ji ma ne lamb ji du mystique moo ma koy may fii na nattee boobu bopp ndax mun naa nekk mbër wala mun ma nekk mbër. plateau nga bokk. noo ressortissant de Fatick bu Kër Massar bu Kër Massar ok euh, tey nii bu fekkoon ni da nga am looy wax sa loo koy waaw dama koy ñaax wax naa ko si géew bi ne naa ko nii la mënoon demee parce que maa la gën a soxla ndax dama tegle ñaar defet mais dama koy ñaanal keneen ku mu bëreel ku dul ku ma xam yàlla suñ borom may ko ndam te defetam yàlla na fi yem bu bëreewul ak ku ma xam. lan ngay wax supporter sant yàlla sant waa Canaba bu baax lépp li naan ne da ko bandum dama ko gëm bu baax dama doon bëre mbapat saa bu may ngemb dem Canaba ngemb di roñe mbapat mbapat bëre naa lu mat lu war a mun a mat 14 combats wala 15 benn defet laa daanoo. may bëre arène di négliger Dakar rek laay toog di ko gérer muy metti ñu ne ma boo boo doyalul si daanu yi rek ñun dañ lay seetaan ma dem tey suñ borom nangu damay ñaanal suñ waa Igri ñoom Diaz Abdou Seck billaa wallaay amuñu seen fay dañuy def lu ne ngir ñun Diaz balaa muy dugg këram day guddi te am na soxna Abdou Seck balaa muy tëdd noonu lay demee amuñu seen fay di ñaanal na képp ku am école ba ressortissant rafet combat na la suñ borom taxaw may la ndam si darajay seexu canaba sant naa waa canaba bu baax sant sama yàlla sama yaay bu baax ak sam papa di sant itam grand puy sama turandoo moom laa tuddee sama bopp kii nii moom laa tuddee sama bopp waaw moo ngi nii moo ngi ne sëgg fee li nekk si moom man li may jàngal sax mënu ma kaa tare maanaam xama rek maa ngi leen di bëgg nag bu baax a baax kon jërëjëf jërëjëf Pouye 2 euh, bi ñu jógee ci ki nga xam ne mooy ndigal jàkkaarloo woon ak ki nga xam ne mooy étudiant euh, nga xam ne euh, yàlla def na mu am defet waaye terewul ba léegi mu ngi ànd ak conscience am xam ni loolu la yàlla dogal euh, léegi étudiant lan ngay jox li nga xam ne rek mooy maanaam public bi ak supporter yi. waaw maa ngi ziar ñëpp di baalaax ñëpp di baalaax na ci trop sama première sortie la xam nga gën ak gën ak supporter yu xam nga ñiy jóge village xam nga métti na moom mais maa leen di masaw te leen te leen beneen bi yoon mooy da parce que combat yi ñoo ngi may waxaat nii nii sax dama daanu mais waxaat nan la maa ngi jéglu nag supporters yi yëpp di baal ak ñëpp di baalu ak ñëpp parce que dérangement bi fii ba tuubaatul métti na waaw. mais seetaan nañ bi mais ci biir combat bi ñu bëri yaakaar nañu jekku nga sa waay mais est ce que jaayoo sa combat tamit parce que ni ko ni ko songee ak ni ko yàkkamtee est warul sa défaite. non défaite moo ñëw rek mais ku dul kii sax barki maam Serap Fall dama koy daan facilement. barke alxuraan xaw ma lan la mais yàlla la rek waaw beneen yoon ay dax di ko wax fan si yëpp kii nag ma defoon hommage maa ngi koy ñaanal yàlla xari ko ajana barke naa Mohamed sama waay la woon sama xarit waaw saa yu ma doon dem mooy jëli kaaram xam nga di ma jàppale du ma ko fay dërëm barke alxuraan fan la dëkk Touba Toul la Serigne Saliou Faye dafa décédé waaw ah, dafa décédé waaw waaw waaw di ko ñaanal boo xoolee ci moom rek nga xam ne sant yàlla yàlla baax na waaw léegi yow ginnaaw defet bi nii euh, lan nga xalaat sa kanam. non yeneen combat rek parce que lam la rek man avant lam ji sax dama doon compétir ci àll mooy mooy première premier combat arène. waaw bii mooy premier combat. village bi boore naa fa neuf combats sept victoire benn match nul benn défaite waaw waaw waaw merci.